ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أسعد الناس في الدنيا من أخلص قلبه لله واعلم أن الله أرحم من نفسك وإن صدقت مع الله صدقك وما من عبد يدعو في الكرب وتصدق مع الله إلا أعطاء إحدى الحسنيين إن كان سبحانه وتعالى يعلم أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا وإن كان يعلم أنه سيؤخر, سيؤخر عن الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا عباد الله إن أجل نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد هي نعمة الهداية نعمة الهداية إلى الحق الذي يرتديه سبحانه وتعالى ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ليست السعادة ليست السعادة في الأموال ولو كان في الأموال لكان أسعد الناس قارون قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون يا عبد الله فكن مع الله ولا تبالي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne jaamam daa war fu mu toll di ko sant waaye ñu ngi koy ñaan mu jéggal ñu ca yërëm ñu julli ca sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi din mbokk jullit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ci ñu ragal ko ko te mooy def ay santaaneem bàyyi ay tereem bu kenn ci yéen dee lu dul fekk mi ngi jébbalul boroomam gannaaw loolu bokk na ci luy waru gar ci jamono bu nekk ñuy fàttali jullit ñi ana lan mooy ak texe waaye rawana ci sunu jamono ju jaxasoo ji ñuy dund tey jamono yoo joo xam ne bépp valeur boo xam ne amoon na ci doomu aadama na doon loolu diina ju sell la wala jukko ju rafet la wala aada bu baax la mboole mi valeur yooyu tey dañoo gis ne nit ñi suul nañu ko fàtte nañ ko benn valeur rek mooy bi taxaw mooy am-am ku nekk jàpp na ne maadaama am na moo gën ñépp ña amagul it jàpp nañ ne maadaama amaguñu tekkiwuñu dara mbokk loolu da ngay gis ne benn njuumtale la boo xam ne bu doon daa yem ca dëkk yéeféer yi rek du doon problème waaye malheureusement soo demee ci dëkk jurit ñi it ñu bari noonu lañu xalaate waaye mbokk loolu njuumte la xamal ni ki gën a texe ci kaw suuf mooy koo xam ne jébbal na boppam boroomam subhanahu wa taala borom bi yàlla nga xam ne moo ëpp yërmaande ci sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari mag borom boobu nga xam ne soo dëggoo jëm ci moom mu dëggu jëm ci yow borom boobu nga xam ne amul benn tiis boo xam ne da nga ko jëmale ci moom lu dul jox na la ca lenn ca ñaari ngëneel yi loo xam ne ni milliardaire bi gëmul yàlla amu ko président bi gëmul yàlla amu ko ca moo di ne ne mbokk du alal mooy régler problème yépp du nguur mooy régler problème yépp doomu aadama li ko wër ci problème kenn xamul nu mu toll amaa yow julit yaay ki nga xam ne sa mbir daa yéeme lépp loo xam ne dal na la ci xéewal doo ca bew doo ca saalit da nga koy delloo rek sa borom jàlla wa ala waaye natt yi lu mu bari bari ak lu mu safaanoo safaanoo it du la perturbé du la jaxase da ngay delloo lépp sa borom subhanahu wa taala diis ko ko xam ne ci moom la jóge te xam ne yow ab jaamam nga te xam ne dala koo teg pour nattu la loolee heure boo jébbaloo ci sa borom dénk ko sa bopp ñaari xéewal yi mi ngi lay xaar xéewal gu jëkk gi mooy yàlla xam ne nattu bi teggi koo gën ci yow yàlla teggi la ko ci lu gaaw ci foo xam ne fooga woo ko fa woon sax wala bu dul looloo sunu borom yàlla dana la may ci ak xéewal ci jokkoo gi ngay jokkoog moom jébbalu gu nga ko jébbalul benn bànneex boo xam ne da nga ko yëg sa xol mooy gën a màgg ci yow sax yàlla teggi woon nattu ba lu bari ci borom xam-xam yi dañ ko daan wax natt yi leen yàlla tegoon nañ ca jóge di naafila guddi di toroxlu ci yàlla di fàttaliku yàlla guddeeg bëccëg di jéggul yàlla guddeeg bëccëg mujj nañ caa am caf ko goo xam ne moo leen gënaloon sax natt ba teggee ko loolu nag mbokk ki nga xam ne moo ko mën a am mooy ki nga xam ne daa gëm boromam subhanahu wa taala loolu moo lay yóbbu ci nga xam ni ndekete texe bi gën a màgg bu doomu aadama di am ci kaw suuf mooy texeb yàlla xéewale ko teg ko ci yoonu njub yàlla xéewale ko teg ko ci ngërëmam yal na yàlla teg ñu ci ngërëmam su boobaa ak bépp xaal bu mu la mën a fekk dañ laa tëjoon ci kaso waaye bañ lay tëj yaa ngi tëddee ngërëmal yàlla dañ laa génn sa réew waaye ñoo ngi la fa génnee ci ngërëmal yàlla dàq nañ la sa liggéeyukaay waaye ci ngërëmal yàlla tax ñu dàq la fase nañ la ci sëy ba waaye ngërëmal yàlla tax ñu fase la lii lépp mbokk da ngay gis ne day wëlbatiku nekk xéewalu xol boo xam ne moo lay gënal fuuf ca lañ la jële ay yéen jullit ñi rawatina yéen ndaw ñi xam leen ne sunu borom su ko neexoon day mboolem waa asamaan ak suuf mu def leen ay buur jullit ak yéeféer comme nam ko nar a defe waa aljanna waaye loolu di xikmaam nim binde doomu aadama ci kaw suuf xam ne na ñu bëri bu leen joxoon dañuy daal di bew fàtte seen diine looloo tax muy nattu rawatina jullit ñi di leen yónnee loo xam ne day yem ci ñoom ci du leen bewloo gàtt wërsëg nekkul abadan na man damaa texee di ñàkk gu tar wuyuwul abadan na damaa texee di waaye yow mi yàlla nattoo nga amit xamal ne bu doon am am mooy texe kon ki gën a texe ci kaw suuf day nekk qaaruun qaaruun mi nga xam ne sunu borom nee na caabi ya doon tëj ay magasin mbooloo buñ daje woon bëgg yëkkati caabi yi attanuñu ko loolee kenn mënu ko imaginer mu génn ca xeetam ba ca taaram ba ñi xamul ñépp naan ay aka neexoon ñu am li mel ne qaaruun a am yaa layta lana misla ma utee qaaruun loolee nga xam ne tey lu bari ci jeunes yi loolu la ñuy xalaat lan la ñuy xalaat ni ñu def ba réussir rek ci àdduna am kër gu màgg oto bu rëy jongoma yu taaru jàpp ne loolu buñ ko amee rek réussir nañ luñ ko mën a jënd jar na ko mbokk loolu erreur mënu ko passé loolu tax borom xam-xam ya fa nekkoon lu ñu wax alkaanga ñeel na leen yéen ñi mébét lii xam leen ne ngërëmal yàlla moo gën a màgg lépp payug yàlla moo gën a màgg lépp te kenn dong moo ko yeyoo kenn dong cay jot mooy ña nga xamee ni nii moom mooy muñ ko di ey yow jaamu yàlla bu baax bi xamal ne sa borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moom mooy nattu ay jaamam su ko defee nattu googu mu la nattu nga la way góorgóorlu nga dellu ci moom te bul faale ci dara sa borom nee na man may féetee gaa yu baax yi zalika bi anna allaha mawla allazina amanu man may féete woo gaa yu baax yi te yéefér yi amuñu kenn ku leen féete woowoo képp koo xam ne gëmul yàlla ak lu mën a am ci alal ak nguur xamal na loolu am nattu la am ma yow julit xaal boo mën a nekk ci kaw suuf da ngay xam ne lii nga xam ne maa ngi koy yuutu jot naa ca loolu xéewalug yàlla la waaye lii ma bëgg jotuma ci it loolu nattu la bu ma yàlla di nattu sunu borom yàlla dara tawu ko moo ne wa maa yaftaxi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baad wa huwa al azizul hakim sa borom yàlla lépp loo xam ne ubbil na ko xiiwal ñeel ab jaamam àdduna yépp buñ daje woon mënuñu koo xañ sa borom yàlla lépp loo xam ne ab jaamam bëgg na ko mu xañ ko ko àdduna yépp buñ daje woon mënuñu ko koo jox moom mooy ki not ci kattanam moom mooy ki nga xam ne nii moom mooy ki xereñe loolu mbokk da ngay gis tey jii boo dellu woon fale nga xam ne moom mooy ci yéeféer yi ak ña leen di roy ci biir jullit ñi ñi ngi nekk ci ak stress bu rëy jaaxle gu tar imma dañoo am wala imma amuñu ña nga xamee ne amuñu loolu seen mbir leer na waaye même ña am seen xel dalul ñi ngi xalaat ëllëg ëllëg ëllëg ba da ngay gis ay société yu ñu lay wax misaal lu mel ne ay télécom ak feneen ak feneen ay cadre supérieur di fa xaru ngir ragal na société bi dafa mën na daanu loolu mbokk pexey seytaane la ci jullit au lieu nga ittewoo sa diine ittewoo sa tey ngay xalaat ëllëg ëllëg ëllëg moo tax nga gis benn waay boo xam ne mi ngi këram mi ngi oto mi ngi compte bancaire am xelam dalul ndax mi ngi naan njaboot gi ëllëg njaboot gi ëllëg et pourtant donnewul ci baayam sax ñaari dërëm ñuy dajaloo tey yàlla jox na ko lii lépp loolu nag mbokk sunu borom mu ne cheytaanu yaidukumul faqr wa yaamurukum bil fahsha cheytaane mooy dox seen diggante naan leen da ngeen di ñàkk looloo tax ba loo am doyu la benn waay nekk cadre supérieur foo ko fekk ma ngay jooy benn waay ngi am alal foo ko fekk ma ngay jooy lu tax cheytaane yaadukumul faqr loolu itamit da ngay gis ne di leen digal ngeen di investir ci loo xam ne amul bopp amul genn loo mënoon a xettilee faqir yu bari xettilee ci miskin yu bari dajale ay centaine de millions yemele ko ci benn kër yaag sa jabar ak sa doom ak sa xacc wala yemele ko ci ab oto te say nijaay ak say faqir ya la wër soxla woon ko lool amuñu lu ñu lekk lii lépp mbokk la koy waral mooy pexey seytaan am naa sunu borom mu ne man day li ma leen dig mooy jéggal leen jox leen samay ngëneel yaidukum magfiratan minhu wa fadla yàlla jéggal leen loolu lim ñuy wan mbokk bokk na ci loo xam ne dana indi xat-xatu dund doomu aadama mooy yow julit nga nga nuur ci ay bakkaar fokk sa borom yàlla dana la nattu pour nga dellu gannaaw looloo taxoon yàlla waxloo woon nuux alayhi salaam na ko waxal sa xeet istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursil samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا نوح وخال سخيرنا لين جيجلو لين سين بروم كبرين جيجل لا جيرمالي دانو أبي بنت أسماني متولين دانو أبي سوف ممنيل لين دانو لين ماي أي دخ يوك سين علال ورسقل لين دوم يباركيل أنا لو تيوان ين دلو سين بروم mbokk da ngay xool tey loolu sunu borom dige xoolal boo xoolee sur le plan ci kenn wala ci mbooloo mi yépp yéen a ngi dégg problème yi am Sénégal ñi ngi jooy guddi ñi ngi jooy bëccëg xoolal problème yi nga xamee ni nii am na Tunisie ba tey maa ngi dégg juróom benn fukk ak juróom benn ñu dee ca mbedd ya lu waral loolu nee na ñooy dund ba dafa jafe ca président ba moo leen ko teg mbokk yooyu yépp mbir la yoo xam ne même bu dee génnu dëgg ma nga ca ndax jullit ñooñu xalaat nañu ndax ñi ngi seen yoonu boromam déet soo demoon Tunisie jaar seen mbedd ya ndax la ngay gis neex na borom Tunisie am déet gars yi borom Tunisie mooy borom Sénégal borom Sénégal mooy borom asamaan ak suuf te mooy sunu borom subhanahu wa taala loolu la Moussa tontu woon Firawun ba mu ne ko wa ma rabbul alamin mu ne ko rabbul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum muqinin Firawna sama borom mooy ki moom penk moom suuf ak li ci diggante bi mooy sa nguur gi yàllaa ko moom comme ñu xam ne yàllay borom Sénégal borom Tunisie pourquoi dund ga jafe ba nit ñi ñëpp nekk ci ay xat-xat dañoo jaarul fi neex yàlla subhanahu wa taala waaye sunu borom nee na walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kazzabu fa axaznahum bima kanu yaksibun ña nga xam ne ñooy waa dëkk bi bu ñu gëmoon yàlla ragal yàlla mu ubbi barkay asamaan ak suuf soo dellu woon ci gannaaw tuuti sunu maam yi sancoon Dakar te fekk Dakar yàqoogul nii ay salaire yu dérisoire lañ daan am salaire yu néew a néew waaye daan nañ ci dajale lu bari tabax ci seeni kër yónnee ci mbokk yi nekk ci àll ba dalal te ñu bari ba tey ndakaaru fees ci kaw kaw lu ko waral loolu mooy barkeel ba mu barkeeloon tey da ngay gis ni te tey daañu am cent fois plus que ñooñu lañ doon am waaye dara ci barke amu ko lan moo ci nekk mooy bakkaar yu bari yooyu nga xam ne dafa nekk ci ñun loolu moo tax ba ci cadre waa réew mi mboole seen ngalawaay nañuy góorgóorlu di dellu sunu borom di tuub ci moom di ko ñaan mu ubbil ñu bunti xéewal yi ca di ko ñaan mu ubbil ñu bunti ngëneel yi ca yiwit yow doomu aadama nga la waay bul fàtte ne sa borom lépp loo xam ne xañ na la ko ci xéewal la nga xam ne moom la la bàyyee ko ëpp téeméeri yoon ca loolu julit da ko war di bàyyi xel fu mu mën a toll moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu jàngal ne saydul istixfar mooy na gën nañuy jéggaloo sunu borom mooy nga wax allahuma anta rabbi la ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfir li la yaghfiru dhunuba illa ant la gën nañuy jéggaloo sunu borom mooy nga ne ay yàlla yàlla man day yaay sama boroom yàlla yaa ma bind man yàlla sab jaam laa maa ngi nekk ci li nga xamee ni nii diggante nga ko ak man ak la nga xamee ni nii dig nga ma ko sama kemtaleel kattan yàlla nag ma musal sama ayu li nga xam ne fàggu naa ko yàlla maa ngi nangu xéewal yi nga def ci man abu ulaka bi ni'matika alayya loolu lu bari ci jullit ñi dañ koy fàtte mooy xéewal yi yàlla def ci yow benn waay bi ngay dajal muy jàmbat mën na am mu jaaxle sax xamul fu mu jëm ba da ngay gis ay jeunes yoo xam ne nii dañuy dem di drogué wu soo leen laajee ñu ne non non buñ drogué wul dañ fiy xalaat ba dof or ko xamuñu ne drogue boobu moo leen di defloo lu waral loolu jàpp nañ ne sa wappa waaye boo doxoon tuuti ci mbedd Dakar gis koo xam ne ma ngay darngu gis koo xam ne ma ngay béréngu amul ay tànk amul ay loxo soo xoolee da ngay gis am na ñu bari tey ci àll bi ak ci yeneen dëkk su dañuy toog ay fan duñu lekk yow yàlla wërsëgal na la yàlla yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi solo kenn du dajeeg ñëw yow ba jàpp ne yaa ngi ci ay fiis et pourtant nga boole loolu lépp di xas sa boroom di ŋàññ sa boroom te noo koy xase noo koy ŋàññi mooy sawa paa di jooy guddi di jooy bëccëg ngir la nga ñàkk fàtte la nga xam ne mooy say xéewal loolu moo tax ba mbokk nañu góorgóorluwaat dellu sunu boroom jalla wa ala xam ne boroom boobu lam yeyoo ci ñun mooy ñu daal di koy tuub jëm ci moom nangu ay ndigalam waaye nangu ay xéewalam la nga xamee ne nii moom la ñu manqué ñu yaakaar ko ci moom looloo tax fukk yoon ak juróom-ñaar ci bés bu nekk daan taxaw ci kanamam ne ko yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay yàlla yow dong la ñuy jaamu ay yàlla yow dong la ñuy dimbali ko ci feebar bi nekk ci man ci yow lay dimbali ko ñàkk gi ci yow laa koy dimbali ko ñàkk jëkkër wala ñàkk jabar ci yow laa koy dimbali ko problème fu ma dëkk ci yow laa koy dimbali ko tumuranke gi ci yow laa koy dimbali ko ay yàlla iyyaka na'budu yow dong la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in ci yow dong la ñuy dimbali ko yal na yàlla xettali ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala ta'ala وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عباد الله ليس البكاء والشكوى يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله عليك أن توكل على الله وأن تحسن ظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به إياك أن تيأس من روح الله ورحمته ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون توكل على الحي القيوم أرحم الراحمين واسأله, واسأله أن يمدك بالعون والتوفيق وأن يفتح عليك أبواب الفرج دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال يا أبا أمامة ما أجلسك في المسجد في وقت ليس من وقت الصلاة قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك قال بلى يا رسول الله قال فقل اللهم إني أعوذ بك من الحزن وال... وال... إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كلمات طيبات فما من عبد يقولها مؤمنا بها مقتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا قال أبو أمامة فقلتهن فأذهب الله همي وقدى ديني أخي في الله أراد الله لك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى أراد الله بك خيرا إن جعلت الله نصبا عينيك واشتكيك واشتكيت إليه همومك قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ay yéen mbokk julit sunu borom yàlla ñi ngi koy sant di ko gërëm ñi ngi koy jéggalu ca di ko balu di ko ñaan mu julli ci sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nee na ñu danañu nattu ci nattu yoo xam ne yu safaanoo la waaye nee ne bégalal ma muñkat ya ñi nga xam ne fu nattu mën a jóge dal ci seen bakkan dal ci seen alal dal ci seen njaboot dal ci seen mbokk julit ana ñoom lu ñuy wax ah ñun daal jaami yàlla lañu te ci yàlla la ñuy dellu ëllëg yowmal qiyaama sunu borom yàlla ne ñu mel nii day danaa leen yërëm ñu mel nii day danaa leen gërëm te ñii day danaa leen teg ca yow na njub wa yal na yàlla boole ñu ca looloo tax mbokk julit nekk foo toll di jooy foo toll di jàmbat du mën a i gaawal ci yow mukk lu yàlla nar a yeexal waaye du yeexalit lu yàlla nar a gaawal yow jurit du la mën a dal wékkul ci sa boroom rafetal njortu jëm ci yàlla bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañ ne pare nañ ci àdduna c'est fini alku nañ ba faw mbokk loolu erreur munta passé loolu xamal ne sunu boroom moo moom bis yi wa tilka al ayam nu daawiluha bayna annas bis yaa ngi ni moo koy wëlbati ci nit ñi tey ki ñàkk ëllëg mën na am tey kay am ëllëg mën na ñàkk sama góor gi biyee care nettali na ma lu ma soon a xew seen dëkk benn tabaski benn góor goo xam ne dem na wër ba sonn amul tabaski mu ñëw ba seen toolu dëkk rek pendre boppam daal di xaru fii ñu koy waxe nii góor gi nee na xale yooyu mu jaaxaloon ba tax muy xaru la ëpp ci ñoom tey ay millionnaire lañu mbokk ëllëg ëllëgi yàlla la kon bul dindi sa yërmaa sa yaakaar ci yàlla sunu borom nee na amul kenn kuy teggi koo xam ne day ñàkk yaakaar sama yërmaande lu dul ab yéeféer rek kon wékkul ci yàlla ca ñaan ko foo mën a toll mu dooleel la dëppaleel la ubbi la la nga xam ne mooy bunti xéewal yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ñëw bis ci jàkka ji fekk fa benn waay bu ñu wax abi aba umama mu xool ko xëy na boori onze heures la woon peut-être aba umama waaye looy def ci jàkka ji ci waxtu yi nga xam ne di waxtu julli mu ne ko yow mi yàlla yu ni jaaxle rek ay tiis moo ma dal ak ay bor yu jaxasoo ci man ba mënatumaa génn fenn yonent bi ne ko kaay ma jàngal la ñaan goo xam ne soo koy ñaan day yàlla dana teggi say tiis te fayal la say bor mu ne ko ah kay yu mi yàlla yónni jàngal ma mu ne ko da nga naan yàlla maa ngi làqu ci yow nga musal ma ca la nga xamee ni nii moom mooy ak njàqare njàqare mooy li ngay ragal ci sa kanam loolee mbokk da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala rek mën a dox sa digganteeg moom yàlla nag ma musal ci njàqare waaye yàlla yàlla na nga musal ci tiis tiis moo la nga xam ne dal na ci yow ba pare loolee na doon ak ñàkk la feebar la jaaxle la bu mu mën a doon dal na ci yow ba pare loole it yàlla jàll wa ala rek moo ko mën a teggi ay yàlla yàlla na nga musal ci lot al ajz mooy li nga xam ne bëgg naa ko sama njëriñ la munuma koo jot yàlla yàlla na nga musal ci loolu waaye yàlla yàlla na nga musal ci tayel tayel mooy lan mooy loo xam ne yàlla may na la kattanu nga mën koo am waaye nga tayal koo def loolu it yal na yàlla yal na nga musal ci loolu te loolu da ngay gis ne bari na ay jeunes yoo xam ne bu leen yàlla nattuwul tukki loolu day dal ci ñoom yow jeune da ngay nekk ci koñ bi amoo dara benn jeune jógee fële ca Guinée wala fële ca ah Mali ñëw indaaliwul dara waaye dugg génn di jaay socc ki guro dema dem ba mujj mu lay romb ak puus puus ba mujj nga koy romb ci taabal ba bis rek nga romb ko mu ubbi bitik et pourtant doole ji mu am yaa ko ko ëpp téeméeri yoon moom moom amul woon fu mu dal ila axiri kon loolu moom lan moo koy waral mooy man nga ko waaye da nga koo tayal yàlla yàlla na nga musal ci tayal googu gannaaw ba yàlla yàlla na nga musal ci ragal mbokk julit du ragal wala fi nee na ragal yab yàlla la da ngay laaj sa aq waaye taxaw ci dëgg bañ a doon koo xam ne kuy ragal la gannaaw bi yàlla yàlla na nga musal ci nay mbokk nay day yokk ak ñàq nay day yokk ñàkk bu dee da ngaa toll ci joxe fukki dërëm fukki dërëm nga yor joxel fukki dërëm ya heure boo joxee yàlla yokku la amul bis buy xëy lu dul malaaka dana wàcc ci kaw suuf naan yàlla lu way war a joxe joxe ko yàlla na nga ko wutal lu gën beneen malaaka wàcc ci kaw suuf yàlla ko war a joxe ca joxewul yàlla na nga koy indil jafe-jafe gannaaw ba mu ne ko ñaanal yàlla mu musal la ci ay bor yu lay not bor yu lay not mooy lan mooy loo xam ne dem nga ba xam ne sa téeméeri pexe yépp daje na mënoo ci dara yàlla yàlla nga musal ci loolu yàlla it yàlla na nga musal ci ay góor doon ñoo xam ne nii ñu ma not lañu te may góor yoo xam ne nii ñoo lay féete fépp lépp yoral la ko ba loolee tax ñu la cay yëpp yàlla na nga musal ci loolu kaddu yooyu la yeneen bi alayhi salaam jàngaloon aba umama di kaddu yi tey yoo xam ne képp ku ko comprendre dellu ci boromam gëm ko di ko wax fokk yàlla xettili ko loolu tax aba umama nee na ba ma ko waxee rek la ma yàlla subhanahu wa taala ubbil bunti xéewal ma daa di fay samay bor daa di doonaan ku ku liibar comme ñëpp ay yow julit xamal na yàlla bu lay teg ay nattu daa bëgg a xool nan ngay muñe comme bu lay sotti ay xéewal daa bëgg a xool nan ngay sante yàlla bokk na xéewal gu réy gum lay defal bi mu la tegee nattu bi sa xol jëm ci moom nga toroxlu jëm ci moom loolee nga xam ne defal na ko benn jaamam di yanquba alayhi salaam teg ko nattu bu tar doom ju baax dàq ci li yàlla bind mu yusuf alayhi salaam nar a nekk ab yonent yanquba xam na ko yàlla natt ko mu teqalikoo ak moom lenn ci borom xam-xam yi nee nañ jege na fanweeri at yanquba joy na ko ba gumba loolee ba ko doom yi dee wax di ko yedd ci loolu dana leen déet man kat musuma jàmbat jëm ci yéen sama jàmbat yépp ci yàlla rek laa ko jëmale innama ashku basi wa huzni ila allah loolu kon bala ngaa dem ca grand place wala nangam naan man sama lii sama laa sama lii sama laa demal julli ñaari rakka wéet ak sa borom na ko yàlla day nangam ak nangam day doxul ci man yàlla nag ma xettali ba loolee dox innama ashku basi wa huzni ila allah sunu borom mu ne awa man yujibu almutarra ida da'aahu ويقصف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله خليلا ما تذكرون borom bi nee na ana kan moo mën a teggi tiis ku dul yàlla su dee danga ko woo ana kan moo leen def ay wuutaay ci kaw suuf ana kan moo leen mën a xettali ak néew loo xam ne yéen a ngi koy xalaat loolu moo tax ba mbokk jurit nañu xoolaat gis gi gis gis gisin yi bu ñu jàpp ne alal mooy lépp ngalawaay bu ñu découragé ñun julit am nañ trésor boo xam ne moo gën a màgg trésor bi nekk ci kaw suuf yépp te mooy trésoru ngëm sunu borom bi nga xam ne dërëtalawu ko gëm trésor bi nga xam ne lépp lu ñu dal ci ay nattu it dañu koo def ngir far suñuy bakkaar yëkkati suñuy daraja loolee ngalawaay bu la ko dala xañ yow mbokk julit ñu ngi ñaan sunu borom borom arash bu màgg bi ci mu defal ñu ak jënn waay ci bépp xat-xat bu dal sunu kaw yal na yàlla teggal ñu tiis yi ak njaqare yi yal na yàlla fayal ñu bor yi yal na yàlla saafaral ñu jàngoro yi yal na yàlla teggal ñu réer gi nekk ci ñun yal na yàlla teggal ñu ñàkk gi nekk sunu ndaw ñi yal na yàlla yombal sëy yi yal na yàlla subhanahu wa taala xettali képp koo xam yi jóge nga fi dem bitim réew dëppale la ak diina ju sell ak ngor gu sell wërsëgal la teraanga boo mën a dellu siwaatee yal na yàlla may ñu jàmm ak aafiya gëmloo ñu ne diinam ji mooy la gën a màgg lu ñu war a wattu yal na yàlla xettali ñu adduna ak alaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله